président Ousmane Sonko ni di dóor ay

tidur anak irmajan kita tadi ini tidur anak irmajan kita tadi ini tidur anak irmajan kita tadi Aikir Abu Parta yang saya menggunakan minyak eh, noonu de retour excusez la qualité du son président Ousmane Sonko ñoo ngi toll fi nga xamante ni moom moo di rond-point di Sonatel di ñu war dem rejoindre ci kër gi mi ngi noonu gendarmerie mi ngi noonu encore dooraat ay lacrymogène ci kaw pont ci kaw pont bi ak pont bi nga xamante ne moo dandoog Sonatel jëm kër président Ousmane Sonko toppaat nañ xale yi door nañ ay ndax moto yi dañ leen wër ndombo moto yi moto yi dañ leen wër ndombo loolu moom moo leen métti doorati nañ ay lacrymogène ñu ngi noonu ci kaw pont bi seen ñoo ngi noonu de part et d'autre ils sont là ils sont là moto yaa ngi noonu yéen a koy séen moto yi la ñuy tere ñu agsi waaye lii la yàlla

Voyez, tout est revenu à la normale mettez les cœurs mettez les cœurs Sénégal askan bi Nous rejoindre la tanière du lion président Ousmane Sonko la tanière du lion du président Ousmane Sonko y a force de l'ordre nous ñu Faut ñu lancé ay lacrymogène face à face baa ngi noonu ci kanam mi ngi noonu ci kanam ci suufu pont bi mi ngi noonu ci suufu pont bi gis nga dooraat nañ lacrymogène mi ngi noonu moto yi moto yi de la ñoo bëgg a xañ ñu gunge président Ousmane Sonko waaye moto yaa ngi noonu bënnati nañ beneen yoon door nañ lacrymogène a ci convoi bi mi ngi noonu yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi koy gis noonu doorati nañ beneen lacrymogène directement ci abri bi nga xamante ne foofu la xale yi ne woon mi ngi noonu mi ngi noonu dooraat nañ beneen mi ngi noonu dooraat nañ beneen c'est bon mi ngi noonu. C'est ça la démocratie du président c'est ça baa ngi noonu ñoo ngi tiire ay lacrymogène mi door nañ ci ay lacrymogène waaye ñun dañuy jàll oto président Ousmane Sonko mi dangay toog dangay toog. waaw loolu ñu lay téye waaye moom. yàlla démocratie. maa ngi wax wax. la démocratie du président Macky Sall. il nous garde et ils en sont fiers. mi ngi noonu mi ngi noonu oto président Ousmane Sonko mi ngi nii au milieu de la fumée des grenades lacrymogènes ñoo ngi nii ak détermination yaa ngi noonu borom yi bënn nañ jiitu nañ il s'apprête à bloquer il s'apprête à bloquer le pont il s'apprête à bloquer le a koy gis noonu oto baa ngi noonu pour dagg le convoi du président Ousmane Sonko ngi noonu bus bi avancé na nii noonu seen car la ñu avancé pour bloquer pour bloquer li nga xamante ni moom moo di le pont aux autres véhicules du convoi dispositif baa ngi nii. ñu ngi de la sécurité du président Ousmane Sonko bloqué bloqué nañ leen ci kaw mi ngi oto baa ngi noonu bloqué na fii am na beneen bu bloqué fële ñooñu noonu gis ngeen yi ni ñu bënnee xale yi bënn nañu la yàlla dogal nangu leen dogalu yàlla ñu topp la loolu yàlla mooy ko ñëpp du ko jóg ñu topp la yàlla loolu ñëpp

bi ci biir oto bi la ñu dóor

ñoo ngi dóor ay lacrymogène ñoo ngi dóor ay lacrymogène gis ngeen ko wetu suma suma mi ngi noonu suma ngi noonu ci biir hôpital bi mi ngi noonu suma lañ dóor lacrymogène dooraat nañu beneen kontaan lañ seen xale bon seen xol la li la yàlla dogal la yàlla dogal fu mu la yàlla moo non nous difficilement on respire président est à quelques mètres je vous dis de chez lui Ouais, il continue à tirer des grenades lacrymogènes un peu partout Nous ngi tirer ay grenades lacrymogènes ba alors que tout nañ cité kër des cœurs mën nañ ñu bàyyi ñu àgg dem suñu kër ils vont bloquer le point cité kër góor gi tirer lacrymogènes on est pris en tenaille de part et d'autre ñu ngi envoyé ay lacrymogène sur le convoi du président Ousmane Sonko. c'est le ministre de l'intérieur ak xolam mooy bon